asalaamaaleykum téléspectateur ak téléspectatrice à bi di leen nuyu bu baax a baax kenn ku ci nekk ci fa nga nekk boo gisee li nga xamante ne ni moom moo di sama ginnaaw xam ne ñu ngi biir Touba comme noonu ko tàmm defee chaque année bu nu màggal gi bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daal di woote ñu fas yéenee ànd ak yéen rek ci lépp loo xamante ni actualité la waaye lépp loo xamante ni xew-xew la comme ni ngeen ko xamee at mu jot dina am koo xamante ni moom mooy toog ànd ak man ñu waxtaanee xew-xewu jamono waaye nag. daaw ba ren ba nu dalee ànd ba tey ànd bi damaa jigloo tey xam naa ni moom góoru Mariama da koo jig mu di Pape Samb mu rasulilaay damay bàyyi Alaaji Pape mu daal di ñëw ci plateau bi ñu am ànd ak yéen ci waxtaan wu am solo xam naa ni moom tey wàcc na dem sur le terrain dugg foo fu baree baree bare damaa naan nees tour rek Alaaji Pape Samb daal di ñëw ci plateau bi ñu daal di gën a yaatal waxtaan bi Alaaji pap ziar naa la. Adja Nana Ndoye sama jigéen wax nga dëgg maa ngi nii di ñëw nees gis rek ma agsi ci plateau bi ñu amal waxtaan bu yaatu. ci waajtaayu màggal gi ak lépp loo xamante ni daal am na fii Touba ngir màggal bis bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo ko woote fii ci Touba xaar ma léegi léegi ma agsi ñu tàmbalee waxtaan incha allah. di leen fàttali ba tey yéen ngi sur la première chaîne urbaine de Mbour ñu ngi fi Touba nak seet si waa kër sëñ Ibrahima Mbacke borom dër bi ndax hmm. david fi la ñu ñewon ñoom ci accueil bu am solo bi nga xamanteni ni Abo def na ak hmm. yaay frère am mustapha hmm. ci accueil bi nga xamanteni heure bu ñu ñewé rek dañu ci and ak ñun waaye Alaaji Pape dafa melni da nga ñu demalon sur le demal demalon nga ñu sax lay wax sur le terrain xol ñi nga xamanteni ni nii ñoom ñooy ah, ñi nga xamanteni dañu ñew magal si dañuy dem nak ñu daldi dem régie ñu daldi di leen dégtal élément bi ñu daldi di dellusiwaat ci biir plateau Hello. ci mu ngi noonu nag ah, gis ngeen alaaji Pape Samb bu rasulilaay ni ngi duggee génn ci biir Touba waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw màggal si dégg nañ ki nga xamante ni mu ngi jógee ba Casamance ci wax ju am solo ji nga xamante nii moom la wax kon Pape dafa mel ni ñenn ñi sax ci jamono gi ni muy tartar hmm. bu màggal jotee duñu ko yëg da ngay gis gars yi ni ñu daan jaayante ci at yi weesu ci hmm. taxawaay boobu noonu la ñu gën dama naan ci la ñu gën a nekk sax laay wax waaw mu ngi noonu loolu moom macha allah. Uh-huh. Eh, loolu lu ma jaaxal la lu ma constaté la aussi. Uh-huh. ni wax dëgg yàlla jamono metti na tar na waaye bu màggal jotee rek tabaarakallaahu ñoom dañuy bàyyi lépp rek lu ñu jàppoon ñëw ngir jàpp eh, ñëw eh, ci Touba Mbacke dëkku maam Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul bi ngir santale ko yàlla ci tukkeem bu rëy bi nga xamante ne ci la ci la doon dem. ba tax na fu ne fu ne nit ñi ñu ngi fay jógee ajaana naa di ñëw. foog naa li tey dafa mel ni ful bi sax dafay gën a yokk bi day gën a yokku te mhm. suba la am na ñu nekk ci yoon bi di ñëw mhm. wax dëgg yàlla am na ñu nekk ci yoon bi di ñëw bu ñu ñëwee mhm. eh, tabaarakallaahu nga xam ni ñi war a ñëw eh, ñi ñëw comme niñ ko waxee ñi des te ñëwaguñu ñëw ëpp ah léegi am na ku ñu jël ci reportage bi muy wax ni Casamance la jóge maa ngi koy tooñ sax naa ngi koy yow <laughs> euh, Bamba waaw joolaa nga wala soose mhm. mu ne ma man soose la mu ne ko yow ci soose maam Cheikh Amadou Bamba yi Xaadim Rasul euh, ci nga bokk tabaarkalla mu gis ni jamono metti na lool mhm. metti gu lool waaye wax dëgg yàlla nit ñi bu màggal jotee dañuy fàtte mettitu jamono ndax ku gis na ni fan yi ñu génn mhm. Sénégal xaw naa yëngu ndax ay coow ay violence ay yu demee noonu waaye wax dëgg yàlla màggal gi bi mu ñëwee kenn yooyu yëpp dañ koo fàtte tege ko nële mais màggal sax nag wax dëgg yàlla daa ndaw réew mi sax ñu ci woon te teewul nit yi yooyu yëpp dañu ko daal di dëxëñ doonatul actualité màggalu Serigne Bamba gi ci la nit yi waaw mais xam nga day <laughs> olof ñun olof ñu wax naa bis bis du tuuti boromam lay tollal waaye waaye nag bis bi ki ko woote bu bis bu tollee ni moom sëñ bi nag kenn dootul wax leen waaw bàyyi bàyyi Serigne Saliou sa sa waaje uh-huh. na mais daal jamono metti na loolu waaye li ñu constaté comme li nga wax ah, bu màggal jotee nit ñi da ngay naan méttitu jamono da nga naan amatul ndax uh, wax dëgg yàlla bernde yi day bëri nit ñi di paas lu mu seer seer ñu dagg ko ñëw bu ñu ñëwee ndeysaan jël seen uh, alal di ziyaare waaw nga mel ni daal waaw mel ni jamono mës ta naqari loolu nag liggéeyu si maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la wax dëgg mu ngi noonu liggéeyu Ahmadou ba jàmbaari Cheikh Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridi ndabe maam Seynabou Ndiaye ji ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni def na ko ci Sénégal ak li ko woon ndax doon na koo xamante ne nii partout dans le monde foo dem kër Seexul Xaadim yi ñu nga fa hmm. waaye nag Alaaji Baab tey hmm. dafa am lu am solo loo xamante ne nii Euh, waa bi wàcc nañ jëm def ko sur le tere dama naan sax ñun ñoo demoon sur le terrain parce que hmm. dafa am loo xamante ni il tamit nit ñi di ci xaw bàyyi xel hmm. Pape liggéey bi ñu bari dañu defe ni doon doon liggéey bu yomb ñun certes nag si bien boo ñun la ñuy gis hmm. ci li nga xamante ni moom moo di petit écran bi waaye am na ci ay jàmbaare fakk tëdd yoo xamante ni ni ñoom ñoo nekk ci liggéey bu ay bi nga xamante ni dañ koy def tey nag dañu fa dañu demoon ci euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, tele yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal daal di ciy sempi ñen Mm. ñenn rek ci ñoom waaye nag ñëpp ñu leen a jël waaye bu ñu sañoon suñu euh, micro dañu koy daal di dénk ñi nga xamante ni ñoom ñoo di télé yi nekk Sénégal yëpp waaye mënuñu ko woon def waaye jël nañ ci ñenn ci ñoom rek mm. daal di leen euh, digtal ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen ay technicien Pape mm. yow tamit euh, nga daal amoon foo ñu demaloon waaw noonu la demee nanaa wax dëgg yàlla comme li may faral di wax mm-hmm. gars yi ñun ñuy feeñ ñi ñuy feeñal feeñuñu te ñun wax dëgg yàlla ay heure la ñuy am waaye ñoom bu ñu xëyee suba ñu ngi fa ñooy ubbi ñooy tëj sonn ci lool ñun fa ñuy nekk day am clim wala mu am ventilo yu baax euh, day sedd lool ñoom fa ñuy nekk boo fa duggee da nga leen di yërëm wax dëgg yàlla kon nag ñooñu tey dañoo demoon delloo leen jukkal ndax itam événement yu mel nii gars yi jaaykat yi la ñuy seeti mhm. dem seeti sapeur dem seeti police yi seeti sëriñ si dugg ci ah waaw dugg dugg dugg waaw waaw waaw mënuñoo ñàkk waaye ATV <laughs> euh, nag xam nga mhm. ñoom mhm. dañu fi gars yi dul génn rek wax dëgg yàlla ci la ñuy daal di fël ndax dañuy innové te nag ñu demoon seeti ñi nga xamante ne ñooy réalisateurs yi Cameraman yi nekk ci organe de presse wala télé yi gën mag fii ci Sénégal comme ni nga bu ñu ñëpp la jël gis ma ñi ci jël ñëpp la sax ngay continuer leen régie dicter élément élément bi ñu ñëwaat ci waxtaan ndax côté ñu nga ci yaatal yow hmm. nga ci ah, fi nga RTS dañuy dem régie ñu dicter élément bi ñu sur la première chaîne urbaine de bu ñu sante yàlla julli ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoo leen ko waxoon dina leen toppal màggal gi de A à Z tabaarakallaahu tey nag ñu ngi fii nga xamante ni mooy euh, fi waa RTS yi nekk ñu taxaw ak kenn koo xamante ni fi lay nekk di fi daan dooleem nekk fi infographiste ak yi demee dañ koy bàyyi mu présenté wu ñu soog a dugg ak moom ci waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay ziar. Euh, maa ngi dolli ziar maa euh, man la Abdoul Aziz Tall infographiste monteur RTS. Euh, voilà quoi waaw loolu la. mu ngi noonu sëñ Abdou Aziz euh, présentation bi am na solo waaye moom nag suñu mbokk waa Mbour la c'est un waa tabaarakallaahu gis nga rek li yàlla di def ñu ñëw euh, am bëgg ko wax ñu jox ñu waa Mbour léegi dañuy ñëw ci màggal gi nan nga ko dundee. waa sant yàlla sant yàlla bu baax man moom man moom c'est la première fois may ñëw màggal en tant que technicien ñëw fi ànd ak waa mm-hmm. ñu nekk ci ñëw fi un équipe. Euh, ñëw rek comme ni ñu ko gisee ñëw pour liggéey euh, jëmmal magal bi euh, ba sénégalais yi def mission service mission publique ba sénégal gi sen bop ci magal bi. Hmm. mu ngi noonu ba sénégalais gi sen bop ci magal gi mais bu fekkee ni magal gi am na jafé jafe-jafe leen ci am ci walu technique beeg walu liguey beeg yan la lan nga nuy wax. bon ñun nak yàlla dafa def bon on fait des planifications. avant ñuy ñëw lan la def la dañuy teg lépp sur plan bon jafe-jafe yi ñuy am parfois c'est li ci ëpp ay déplacement la nga magal mom bu ñu magal mom affluence de personnes yi fi ñëw mom moy tax parfois c'est difficile de xam nga rek euh, euh, déplacer wu de dem bërëb ak pour recueillir ay informations pour ñëw euh, monter ko parfois di jël temps journalistes yi bon bo boo leen doon laaj sax ci at at at suñu chauffeur yeeg pour ñu dem jël ay images ñëw mais loolu yëpp affluence moo koy indi jafé jafé yooyu moo ëpp ci ñuy à part. à part loolu amoo leen benn jafé bon à part loolu gisuma jafé jafé nak vraiment tey en tant que Abdou yow lañ jël comité d'organisation magal màggal ni yow yaa ko géré tey boo doon yok am lo xamante dang koy yok ci walu communication ak presse en général lan lay doon. pré question bi nga dugg ni na bizarre de. <laughs> bon ah fof lan lay tontu. Cheikh nag kaay waxal benn affaire man si la première fois may màggal si xaw ma li xew ci dëkk bi loolu daal. léeg-léeg kon kon sëñ euh, xam naa ni euh, jël nañ sa temps ndax dañ la fekk nga nekk ci mbir yi comme ni nga wax tu es te liggéey yu bëri sa loxo lay jaar kàddu gu mujj ci interview bi ak lan ngay wax di ñaax sa mbokku presse. bon di sant yàlla. di sant yàlla bu baax baax di ñaax rek que ne suñu mbokk presse bi. ñoo bokk liggéey bi ñoom ñëpp. n'empêche que man RTS laa nekk euh, boo xoolee RTS mun naa ne presque moo ko waafee euh, kii bi yëpp euh, presse bi yëpp mais di di leen ñaax di leen wax ne du du du du liggéey bi yomb mais jusque dañuy dañuy dañuy defar rek génne li nga xam ne fexe jëmmal carrément bis bi génne carrément information yi li nga xam ne moom la nit ñi soxla wane joxe l'essentiel bi nga xam ne moom moo tax ñu liggéey vraiment waaw euh, ATV mu ngi lay jaajëfal. Euh, ATI. ATV Actu waaw ATV Actu maa leen jaajëfal bu baax a baax. Mhm. big up à tout le monde xam nga rek sama gars yi. Euh, magal jàmm. macha allah salaamaaleykum ak téléspectatrices su ATV ñu leen di nuy bu baax a baax comme tey ni ñu leen ko waxee woon wax nañ leen chaque année rek bu ñu ñëwee fii di Touba dañ leen di indi lu bees loo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo di téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi day doon lu bees si ñoom comme ko sama càmmeñ defee nag fële ca RTS xam naa mu ngi ca yoon ba ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy caméraman yi di wéyal liggéey bu am solo bi ñun nag ñu ngi fii ci biir TFM tey nag ñu daal di ñëw ànd ak ci ñenn ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor lépp loo xamante ni xarala la ci biir ah, TFM tey nag ñoom tàmmuñu sax di génn ci tele waaye nag liggéey bu mucc ay bu am ci ñoom lay daal di jóge ba ngeen ñuy gis nag ci ah, petit écran bi moo tax tey dañ fi am koo xamante ni dañ ko fi daal di dala mu doon kenn ci ñi nga xamante ni ñoo di technicien wu TFM yi dama koy bàyyi rek ah, mu daal di nuyu ça va maa ngi fi maa ngi sant bu en tant que waa nga jugee Dakar ñëw fi nga xamante moom moo di yan coono ngeen fi jànkuwanteel. Euh, bon mënuma wax coono mais am na coono mais coono mbégte la coono liggéey la bon bu ñu nee màggal Touba moom li sëñ bi dajoon rek ñun mënuñu daj lu gën a yées loolu donc bu ñu ñëwee lu ñu fi mënti daj yi dañuy jàppee ni coono xéewal la quoi. mu ngi noonu nee na lu ñu fi mën ci daj rek coono xéewal moom nag mu nekk euh, technicien ci biir TFM comme ni mu présenté boppam ndax métier bi nga xamante ni moom moo di euh, technicien yomb na. Euh, bon mën nañ ni yombul ndax métier la mais fu mu toll nii daanaka yàqu na nax tout le monde est dedans nit ñi dañ ko jàppee comme fooyekaay quoi ku yor sa. li ñuy wax télé ci poste mais c'est un métier boo xam ne nit ñi ko war a respecter xam ni carrément c'est un métier mooy waral dérive yi ngeen di gis yu bëri ñi nekkul professionnel ñoo koy def mais boo leen gisee ñi nga xamante ni ay professionnel lañ jàng métier bi Euh, nek ay grand techniciens yenn erreur yi duñ ko def buñu romone tay ji kuy lap fi duñ ko filmer parce que c'est des professionnels xam nañ la mo le droit à l'image et cetera et cetera mais dérive yi ngeen di gis yu bëri ñàkk technique xam moo tax métier bi da ngay dem ba mu jaxaso ba nit ñi xàmmeetuñ sax kan moy technicien bi ak kan moy fokat bi ci ni ma ko mën a jàppee. kon su ma déggee say wax nekk ko yombul. nekk ko yombul de c'est est un métier te bu ñu métier moy dang koy tarbiya dang koy jàng. da nga ci tamit euh, galéré lu lu yàgg ay ati at pour mën a euh, am nekk un professionnel mais léegi da ngay gis koo xamante ni soit day génn école benn ate yaakaar ne professionnel kenn koo xamante ni mos koo jàng c'est dans le tas ce qui est bien parce que y a de grands techniciens yoo xamante ni jànguñu école mais qui sont devenus de grands techniciens mais ñooñu dañoo galéré dañ ko topp. ok ci ban domaine ngay yëngu. man je réalisateur. lan ngay jox conseil ci ñi nga xamanteni ñom ñoy sa frère yi wala sa sœur yi nga xamanteni ah, ñu ngi rêvé nek ci place bi nga xamanteni ni nek nga ci ban conseil nga leen di jox ci métier oh, conseil bi ma leen di jox déjà euh, la réalisation c'est c'est le sommet du du technique donc balaa ngaa def réalisation il faudra que nga maîtriser une zone yëpp que ce soit la caméra le son la lumière et cetera donc loolu non, li du di conseil mooy nañ jang. boo janger, do doo Jangal, nga xam so xamee après day yomb ci yow. Hein? bu ñu bàyyi benn daal. bu ñu nañ jàng infographie euh, euh, lumière son vidéo nañ jàng

voilà bon expérience bi ci ciy dund moo tax quoi ça ça commence à durer machallah. allah. Mm. ayca mu ngi noonu dégg ko ni nga xamante mom non la ko waxee ci ni nga xamante ñom ñoy ñooy rêvé nekk benn réalisateur ñu wara jang jàng lépp comme nim ko waxee média amul xaaj accès. seet. lan mooy doon euh, sa dernier sama dernier mot moy ñu leen di gërëm waa ATV. Hein, di leen ñaanal mu télé bi jëm ci kanam nekk une grande télévision ba mu mel TFM hein? mën na nekk yàlla na ko def mais job la moo ko laaj ah il nga liggéey bu baax soo leen liggéeyee rek incha ngeen yéeg ci kaw quoi. aco mi ngi noonu ñu koy jaajëfal bu baax a baax dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante daan nañ ko fa def après ci kanam tuuti rek ngeen wéy daal di may topp sama cameraman da nga may topp ñu daal di dem feneen seeti leen mooy sama jigen bu baax bi waxna la tay dama lay duggal fépp ci ruq yi ak ruqaat wonal tout ce qui est magal waxna la tay dañuy dem seeti télé yi mag yi nek ci Sénégal xol seni technicien seni journaliste sen caméraman nan lañu dundé magal gi ak yan eh, jafe-jafe lañ ci am yow nag sànq maa ngi lay dégg fi nga xamante ni mooy TFM ndax yow rap nga macha allah man nag jóge naa RTS 1 maa ngi ñëw la 2STV fekk fi suñu xarit eh, Amadou dañ koy bàyyi mu wax eh, mu présenté wu wax tabaarakallaahu lan lay lan mooy liggéeyam ci biir 2S sëñ Amadou ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi dolli ziar leen nuyu. xam naa maa ngi tudd Amadou Seye nekk technicien 2STV gérer retransmission émission en direct bu 2 bi daal signal 2S mu uh-huh. jógee fii ci Touba uh-huh. pour dem uh, à Dakar uh-huh. mu ngi noonu jógee uh, Dakar ñëw Touba parce que yéen jóge waa Touba dellu Dakar macha allah uh, yoon bi ba fii metti woon ñu ngi leen di masawu bu baax baax mais nan nga dundee màggal waa xam naa màggal mi ngi nii rek comme ni nga ko waxee léegi. Mm. mu metti ba bëgg a dee bi ñuy ñëw. embouteillage mm. bi tali bi xat. Mm. ba yoon bi metti lool euh, ñu jógee Dakar. bu ñëw Touba. ngir euh, nit ñi nga xamante ne ñoo nekk seen biir kër. mën a seetaan. li nga xamante ne moom mooy xew biir Touba seen télévision. seen biir salon. tey du ñu déplacé wu. ñëw ba fii. ñu déployé nag de gros moyens. Euh, indi lu mat ñeenti oto. benn bi moom mooy car riche bu mag bi nga moo nekk sa ginnaaw. mu yor euh, vidéo bi. ak euh, son bi. Euh, ak beneen oto boo xamante moom mooy gérer transmission satellite bi. ak groupe électrogène. boo xamante ku ne xam na. Hmm. courant bi des fois day coupé. léegi ñu bëgg autonome. Hmm. de telle sorte que hmm. doo courant bi du coupé. day am problème bu man ngeen fay ak yooyu waaw moo tax ñu ngi suñu boo xamante ne moom moo indi personnel bi hmm. di personnel bu sakkan macha allah ñëw fii si hmm. ngir rek euh, bis bu màgg bi ñuy hmm. 18 safar bi ñuy màggalee euh, euh, suñu maam borom Touba tukki bi mu defoon xam naa rek tubaab bi yóbbu ko si si si si si si réewu tugal yi mu ngi noonu kon euh, mu ngi noonu wax nga ko euh, ñëw ngeen fii euh, déployer de gros macha allah ci liggéey bi ci déplacement yi ci wàllu reportage bi ndax ku ne xam na ni comme technicien moom image parfois nga jëli mu xaw am lu mu def en général liggéey bi nan la demee ci ay 2STV waaw xam hmm. ñun bu ñu ñëwee hmm. dañuy indi ay journalistes Mm-hmm. ak ay reporter mm-hmm. ak ay animateur yoo xamante ne animateur yu diine la bu ñu ñëwee dañ teg suñu plateau teg suñuy caméra def ay plateau yu am waaye itam dañ yem foofu reporter yi dañuy dem si biir dëkk bi euh, euh, dem xool euh, waa sapeur pompier seen liggéey ni muy demee dem xool gendarmerie seen yóbbu ay caméra yóbbu technicien jël image ak son ñëw indi ko fii fekk fi monteur bi mu toog monte image ñu wane ko si journal bi ba nga xamante nekk seen kër ñëw ngeen mën xam day taw exactement muy Touba sànq rek invité nañ fi waa ñëw wax bilan wu accident yi am si yoon invité bi gendarmerie ñu wax ni itam ñoom seen liggéey xam naa loolu itam liggéey bu bi bu dee am na ci yan ak la. waaw xam naa jafe-jafe am na bu si mel ni jafe-jafe waaye indaale nañ sóoraal nañ ay techniciens yoo hmm. nga xamante soo ñëwee sur le champ bu hmm. amee problème matériel bu amee problème rek nañ ko réparer lu mu gaaw gaaw wala buñ amee pièce de change ñu changer hmm. nga xamante ne ñu am tardement si si si boo ne dañuy jóge Dakar ñëw ba euh, benn appareil boo xamante ni moom moo lay defal par exemple de transmission. Mm. bu amee problème mm. amoo technicien bu ko réparé am nga problème bu rëy. dëgg la euh, sa liggéey day yàqu donc ñun loolu yëpp dañ koy sóoraale. mais conseil bi ngay joxe jeunes yi nga xamante ne ñu ngi def technique journalisme ak yu demee noonu maanaam ci média en Euh, voilà conseil bi ñu leen jox daal moom mooy euh, technicien audiovisuel métier bu noble la macha allah ndaxte boo xoolee nit ñi ñu toog seen biir kër di seetaan journaliste yi mu toog si plateau di présenter journal am wala animateur bu mel ni Didier Khachar toog def émission wam nit ñi nekk seen euh, ko di ko fekk na liggéey bu ëpp mi ngi si ginnaaw technicien audiovisuel technicien audiovisuel moom mooy def lii ëpp parce que moom mooy teel a ñëw fajal lay xëy si préparé plateau bi câble ay caméra am câble ay micro pour mën a jël son bi nga xamante ne bu euh, animateur bi ñëwee day taxaw rek ñu ñu filmer ko mu jël euh, benn une de temps si plateau si plateau nit ñi di ko seetaan kontaan si loolu tax image rafet na euh, son bi jaar na yoon. te nit ñi toog seen biir kër xamuñu. kan moo jaar foofu. dëgg la donc technicien audiovisuel moom moo jaar foofu liggéey liggéey bu rafet boobu. donc ñoom loolu lañ leen di ñaaxee ñu fexe am amuuru métier. d'abord bu ñu amee amoon bi bu fekk di ko gis na élément bi euh, xam naa ne depuis boobu ba tey ñu euh, euh, ni mooy waaw tey moom tey damaa civilu. Uh-huh. ne ko gis image yi xam ni. Uh-huh. man xam nga nii laay nii laay sañse ay yëre ah, olof. waaye tey moom mm-hmm. dama tey bi may dem sur le terrain dama civilu <laughs> sol lakostu laal sama jëngal sol plastique nag def ñu fi Baye Fall waaw jàppale sama mbokku Baye Fall yi uh-huh. wax dëgg yàlla dugg ci dëkk bi mu bëkkanteeg ñëpp fi mu ni nii may wax ak yow micro bii sax uh-huh. daanaka damaa ñàkk pexe rek waaye attanuma ko <laughs> ndax coono yi bëri na bëri na waaye Cheikh Amadou Bamba uh-huh. jar na ko ndax uh, wax dëgg yàlla liggéey bi mu liggéey ba lii wax dëgg yàlla ku ci feeñ ku ci feeñ dootoo nëbbu mukk waaw moo tax itam ñun dañ ciy fexe di feeñ uh, demoon nañu RTS dem seeti fa suñu naataangoo yi wax dëgg yàlla ñuy wax nan la ñu dundee màggal gi seetaan ngeen ko jaratu ñu ciy duggu si bañ fa jógee eh, jaar nañu ci suñu mbokk waa 2S yi tabaarakallaahu yow itam xam nga awrab nga ah, awrab nga waaw awrab <laughs> nga yaa ngi woon ca Télé Futurs Médias <laughs> tabaarakallaahu eh, jaratul ñuy ñëw ci li ñu wax yéen a ko dégg déggloondoo waaye nag wax dëgg yàlla muy lu am solo ñoom itam bañ demee kenn ku nekk ci ñoom rafetlu nga ñëw bi ñu ñëw ci yow Ah, xam le ne nag wax dëgg yàlla ñun lii ñu def ah duñ ni guleet du waaye bëri bëriwuñu ñu koy def eh, waaw waaw innovation bi ñu def wax dëgg yàlla ñu <laughs> ñaanal ñu wax dëgg yàlla jox ñu ay conseil ñuy nit ñu baax suñu confrères yooyu nga xamante ne ñooy yu waa 2S ah, yu waa RTS ak yu waa TFM ah, di ci gërëm nag bu baax a baax suñu mag Euh, Abdourahmane ñu gën koo xam ci ñun nag alaaji la ñuy wax waaw Abdourahmane <laughs> vraiment waaw di di di di di suñu mag di magu euh, directeur général Mouhamadou Eldo Gueye vraiment ci euh, dalal bi mu ñu dalal wax dëgg yàlla defal ouverture bi nga xamante ne tey liggéey bi euh, suñu directeur nag moo ko xalaat ndax moom moom wax dëgg yàlla euh, du nitu fii comme ni ma koy wax macha allah <laughs> waaw du nitu fii yàlla ñu ko jagleel rek waaw jinnay caméraman yi la jinnay jinnay PDG yi la uh-huh. waaye nag wax dëgg yàlla alaaji jàpp ci bu baax a baax ba lépp mën a kii ah, vraiment alaaji ah, ah, Adja Nana loolu daal la woon ci li ñu jëlee woon ci biti jaratul ñuy ñëw ci lu ñu wax ndax ñoo ko déggandoo macha allah man nag dinaa ci xaw a am lu ma ci branche tuuti ndax bi ñu hmm. duggee fa nga xamante ni moo di TFM hmm. waxtaan wi amoon na solo Pape ndax ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci télé yi dafay baax surtout suñu rakk yi nga xamante ne ñu ngi ci yoon wi hmm. liggéey wi nag Pape jàngat la laaj bu baax a baax a baax mm. ndax nee bala nga ciy dugg war ngaa matale lu bari surtout ci li nga xamante ni moom moo di euh, technique bi nga xamante ni gars ñu ci nekk muy réalisation beeg ñu nekk ci beeg yooyu liggéey bi yombul waaye teewul ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di techniciens yi ñu ngi def seen kémt lay kàttan pour ñi nga xamante ni ñoo di population bi mën a gis li nga xamante ni moom mooy xew-xew bi am biir Touba mm. du ma ne biir Touba rek jëm ci nag ah, xew-xew yi nga xamante ni ñooy am ci Sénégal mm. kon ñooñu dama naan Pape bu ñu jëlee tey bés bu toll ni màggalu Cheikhul Khadim gi daal di leen ci delloo njukkal loolu dafay dafay daal di war hmm. di wax rek ne xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci yoon yu bëgg métier bi hmm. nanu jàngaat gën def ay recherche ndax mbir boo ko bëggee hmm. da nga ciy gëstu pour man ci daal di tegu ci yoon waaye nag euh, Pape dangaa tudd sànq jëmm joo xamante ni nii ba nu dooree ba tey mu ngi topp ñun muy élage di ci lépp loo xamante ni conseil la rek ci ànd ak ATV muy la première chaîne urbaine de Mbour di ko jaajëfal moom borom TFM ci disponibilité bi nga xamante ni am na ko waaye nag Pape li ñu dese ci waxtu xam naa ni bareetul waaye nag du ñu mën a dem tey nag te hmm. du ñu sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak ñun depuis bu ñuy aati bi ñëw Touba ba tey ba nu dooree ba tey mu di njabootu sëñ Ibrahima mbakke bi ci li nga xamante ni moom moo di dalal bi mm. chaque année bu ñu ñëwee day gën a yaatu te mm. chaque jour bu ñu ñëwee dafa dafa ñoo xamante ni nii bokk ci ñoom te loolu rek di leen ci remercier di ci remercier sëñ Moustapha di nga mm. xamante ni moom moo di sëñ Abo Pape lan mooy doon sa dernier mot rek wala ñuy daal di tàggatoo waaw foofu laay tàggatoo sax euh, wala foofu foofu laay fi nga daanelee foofu laay jëlee di sant bu baax a baax waa kër gi di waa kër sëñ Ibrahima Mbacke mm-hmm. Eh, këram lañ nekk waaye eh, njabootam bi fi nekk njabootee ñi dëkk ci kër gi di Serigne Dame Abdourahmane Mbacke ak njaboot yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm li ko dalee ci Serigne Moustapha eh, bu ñu jukkee sëñ Moustapha dañ ciy teg sëñ Abo wax dëgg yàlla sëñ Laat Euh, di beral euh, di di di di leen sant nag di leen gërëm bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla depuis ñuy ñëw fii ba léegi fi la ñuy dal waaye chaque année boo ñëwee xar kanam bi ñu lay won beneen xar kanam bu bees lañ lay won ci nammantiku ak di la di di la bége daal te ñun ñoo waroon a def loolu kon di leen sant bu baax a baax euh, wax dëgg yàlla man nag sama sëñ aboo mooy sama xarit moom mooy sama gaayen wax dëgg yàlla maa ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax wax dëgg yàlla moom bu ñuy añ sax wala ñuy ñuy ñuy xewlu day taxaw di di di la sur di la surveiller te loolu wax dëgg yàlla mënoon na ko bañ a fekk waaye nag di ziar baax sama soppe nga xam ne moom maa soppal sama bopp comme li ma wax rek moom eh, xale yi di ma re naa leen ay biteelam jàpp na ma mooy sëñ Moustapha moom ndeysaan sama soppe la dama koo sopp rek te yàlla tax di wax ne nag eh, man ku ne xam na ne man taalibe maam maam maam Alaaji Maalik bu ma ñëwee fii <laughs> wax dëgg yàlla dañ may bernde bernde bernde ba dangaa sa kër ndax ku wax Alaaji Maalik wax Sëriñ Bamba ñu bokk maam waaw ah, loolu moom defe naa ni mhm. duñu ci wax nga Sénégal benn bopp la benn bopp la wallaay benn la ay ci Alaaji ñoo bokk ñu liggéeyal ndax li ci nag yëpp xañul ci ci nit yi xam naa ne moment bi heure bi li ñu desee deux minutes rek matul sax deux minutes ñu daal ah, tàggatoo da waxtaan wi am na solo waaye nag ah, ñoom ñoom seen heure <laughs> waaw di leen dig daje ba ëllëg ak jàmm ci <laughs> yeneen i reportage

Adja Nana Ndoye ay ca Papa Samba mu rasulilaay nee naa man damay am mbégte ak contentement chaque jour di jàkkaarloog moom ndax nee na ñu ko nu ko olof di waxee sax ñaari ñaari nit yu am ñoo mën a ànd tey dama koy bëgg ci sama plateau di ko jaajëfal bu baax a baax moom jàmbaari Seydina Mouhamed ci descente bi nga xamante ni tey def na ko dugg ci biir Touba ak li ko war waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy ñëw di màggal si waaye nag dem ci yenn këru maison de presse yi nga xamante ni bokk na ci yi gën a mag am ñi nga xamante ni ñoom ñooy technicien de l'ombre yi ma leen ni ma leen di woowee chaque jour rek ak waxtaan wu am solo yi nga xamante ni def na def na ko ak ñoom di jaajëfal nag ñi nga xamante ni ñooy équipe ATV ndax dama naan peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ja dañoom galgaluñu benn yoon ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ba liggéey bi mucc ay ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo di téléspectateur ak téléspectatrice man cee kontaan di jaajëfal Mamadou Gueye ci cadrage bi ah, Mouhamed Gueye Eldo di ko jaajëfal moom tamit ah, ci lumière bi Modou Ndom ci son bi madame Ba ci li nga xamante ni moom moo di ah, réalisation bi waaye nag sama rak sama doom di ñaawal ji moom ci lumière bi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom ami leen wax nag topp leen ñu ndax xam naa ni ñun ak yéen ci màggal bi lépp loo xamante ni actualité la wala lépp loo xamante ni rek bëgg ngeen koo gis ci màggal Ahmadoul Khadim bi restez sur ATV la première chaîne urbaine de Mbour ngeen ànd ak ñun nañu fas yéene wan leen lépp loo xamante ni nii lu nëbb la incha allah dinañ leen ko daal di wan ba képp ku ci nekk rek daal di kontaan ñu demul woon dinañ xam ne euh, fu ñu toog rek dañuy daal di màggal waaye nag dara leen ci màggal gi sur la première chaîne man si seen naa maa àndoon ak yéen waaye xam naa ni dinañ ñëwaat ci yéen ci émission bu gën a ñu gën a waxtaan ci li nga xamante ne moom moo ne xew-xew bi fi amaanillah